lépp lu soxal doomu di TV da koy tej diko faram ci and ak experts ci xam débat day suite a ji passé dañ fay plateau spécial donner un mirum géopolitique rawatina Moyen-Orient fi nga xamanteni bi amone États-Unis ak Iran ba ben drone américain dadi dor ben missile ci général iranien di général Soleimani ba mu amoon coow ñu indoon fi ay kàngam ay borom xam-xam ci wàll gi waxtaanee woon euh, loolu nga xam mooy coow li lan la mën a jur ci àdduna bi waaye lan la mën a jural Afrique bu ñu waxee Afrique nag Afrique daa am lu ko doy ndax jamono ba ñuy wax Moyen-Orient di fa wax al ci biir euh, Maghreb bi wala Al-Qaïda partout dans le monde ci yenn réew yi na nam fay doxee ëpp na doole lool waaye ci biir Afrique xam ngeen ni mbirum jihadisme dafay tàmbalee law ay at mi bu ngeen fàttali ko mbirum Somalie ak ñi nga xam ñooy sabab yi yàgg na fa law na léegi ba ci Mali Tombouctou ak dëkk yu ko wër Tessalit foofu yëpp ba tax na MINUSMA wàcc fa ak ay soldats yu bari daañu ci ñëw incha allah waaye ñu gis ni am na ay kuréel yu bari di ay jihadistes yoo xam dañoo taxaw samp ci biir Afrique boo jëlee fu mel ni Sahel Niger Nigeria bokk aram nga wàcc ba fu mel ni Côte d'Ivoire gis ala fa xew ay attentat nga wàcc Burkina Faso ba ñuy wax ni Sénégal fiñ toll ni dafa am benn cercle bu ko wër nga xam fep safara nga fa waaye ba léegi Sénégal suñu borom mang koy arandi ngir nag waxtaaneem mbir moomu laal Afrique xam nga ni Sénégal ma nga biir kon faaw ñu xool mbir moomu lu ko indim nus ko war a mën a xeexe moo tax sax bu ngeen xoolee bi maa ngi naan ban forme jiyaad lan wara a mën a jiyaad ngir xeex ñi ni woy jihadiste ñi leen woy ay touriste loolu nag muy baaji doy waar yoo xam dañu ko faram incha allah ñu am mbégte lool di ànd ak ay experts ci wàll bi bokk na ca professeur ba Yankhoba Seydi wala mu ni docteur bi nga xam te ne bi maître conférencier la xam-xam màcc jëm ci wàllum géopolitique rawatina lépp lu soxal mbirum eh, yëngu-yëngu yi am ca mën a jur gàllankoor ci suñu wàllum kaaraange professeur mu lay nuyu bu baax di rafetlu sa teewaay ci plateau di maa ngi lay fay di profité waale nuyu sama mbokk yu baax yi fi nekk. Mhm. rawatina sama magu bopp euh, Baro. ak euh, sëñ Xaadim waaye macha allah daañu ñëw ci yow bu ko defee laaj sa xalaat ci wàll gu njëkk gi yaa ngi koy wax sàng sëñ Xaadim maam Cheikh ah. Mbacke Xaadim Awa Ba ah, maam Cheikh Mbacke Xaadim Awa Ba ñu lay nuyu bu baax nga jiite AIS muy ab association boo xamante ne bii lépp luy suuxat soufisme moo ko tax a jóg te bu ñu waxee jiyaat wala terroriste xel dem ci mbirum diine ndax ña koy def dañuy tuddoo diine yenn saa yi donte wuute am na ci lu bëri. ma lay wax dalal jàmm ci DTV maam Cheikh. suñu xaadim euh, Modou Mbacké maa ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf bismillahi rahmaani di nuyu bu baax sunu naataango yi nga xam laa toogal. Mhm. di professeur macha allah Yankub di professeur Barou waaye na sama la. Mhm. di bokk waar wi. teel mhm. liggéey ngir nan lañ mën a fexe ba jàmm am ci réew mi Sénégal. wallaay kon tey boo ñëwee ci bi mel ni xam ne lépp day delluwaat ci rek jàmm. ndax lu ñu waxtaan rek ay solution lañ bëgg. donc dañuy bañ nag. li nekk ci réew yi ak sunum réew te nag loolu euh, ab euh, doomu aadama bu ne loolu war a def xoddiku bala ngaa lakkale fegu kon waxtaan xoddiku bala ngaa lakk kon mm-hmm. waxtaan yi ngay gis yëpp ñu koy def dañuy bañ rek li nekk ci yéen réew yi dugg suñu réew mm-hmm. loolu nag AIS ci lay xëy di ci gontu mm-hmm. ndax mooy kuréel gi boole tarix yi nekk Sénégal yëpp mu di xaadiri jaan laayeen au passage maa ngi nuyu bu baax suñu xalifa généraux yi bërki démb rek lañ jógee tournée nationale di waajal benn événement bu mag boo xam dafa delluwaat ci wàllu yi nan lañ a organiser ak xalé yi taxawal ci mbedd mi nga xam mën nañ leen fëkk ci lu ne ak mañ ci yu bare bare bari mhm. loolu ñu ngi koy wajjal inshallah allah dañ ñu wat allah gën ko yakali serigne mam cheikh mbàkke khadim awaba jité ayes Yang koy wax sang Baro mom sun doyen lam buñ ko présenter de nan journaliste de profession lam hein ah.

wa bisimilah rahmaani rahim ñi ngi lay nuyu euh, sëñ Modou Mbacke. di nuyu téléspectateur u DTV yëpp. Mhm. di am mbégte aussi non seulement ci thème bi mais aussi bokk ko ak suñu ay xarit comme niñ ñu ko waxee. Mhm. Euh, euh, ay xarit yu baax yoo xam ne seen jëf. ak seen taxawaay ci réew mi am na solo te dina feeñ ci biir waxtaan incha allah yaa ngi koy wax sàng noonu lañ bëgg a waxtaanee daañu ubbi aussi téléphone bi ndax damay faral ni DTV euh, télé ñëpp la léppi ku ne ma nga ca kon ñëpp bokk la ku ne am na sañ-sañ indi xalaatam bu nu àggee ba ci njobatoonu waxtaan wi waaye xam ngeen ni Sénégal bu tolloo fii dafa mas a bari ay rapports yu génn ndax 2017 jàpp 2018 euh, département d'état américain dañoo génnoon ab rapport ni Sénégal bokk na ci cible yi nga xamante ne bii terroriste yi ñu ngi koy ciblé Sénégal ndax li ko waral daañu ñëw léegi waaye barki démb ci rentrée cour des tribunaux yi nga xam président Sall teewe na ko moom dafa wax ni kon nañu fagaru na ñëpp dugal seen kàddu ci mbir mi dañuy teewlu président Sall ci boppam ak Codé Ndiaye ñëwaat ci plateau bi. xeex terrorisme lolé moom mooy thème bi ñu tànn ci séance solennelle ñewal rentrée cours de tribunaux ci bir discours juge mayé Juma Diouf djop daal di taxaw ci séddoo information yi ñewal mbirum terrorisme lolé ñewal ab lëkkaloo ci diganté service de renseignement yi ak ñi liggéeyee ci walu yoon. Au-delà de la politique de prévention. mbirum judicialisation renseignement yi maanaam fexe nag ba partager information yi tekkiwul ne dañ bëgg a wutu renseignement yi ci seen liggéey waaye système boobule dafa doon juntuwaay boo xamante ne ni dafay waral ñu xam ci teel màndarga yi jëm ci wàllu terrorisme su ko defee ñu yëngu ci wàllu justice mën a xam ana naka la ñoo saytoo signe yi mandargal acte terroriste président de séance bi di président Macky Sall moom nag di xam ne ni mënuñ nangu ab radicalisation jëm ci wàllu doctrine maanaam di mbubboo l'islam ngir nag def ay ñaawteef. nous ne pouvons pas accepter. mënuñoo nangu benn yoon ñu ñuy jàngal islaam boo xamante ne nii dafa wuute lool ak bi nga xamante ni moom lañ doon pratiquer ay siècle te islaam boobu màndargaam di jàmm balante waaye itam ku nekk jox sa morom cër te boobu la islaam moom lañu fi mës a pratiquer état bi dana wéyal di saytu respect loi bi ci anam bu mënti doon te loolu danañ ci def suñu wàll bu baax a baax li ci des nag ñu ngi ñaan kilifa diine yi ñu wéyal seen mission te moom mooy fexe nag ba yar askan wi ci diine à poursuivre leur œuvre salutaire d'éducation religieuse xeex wàllu terrorisme nekkul rek ab ngànnaay lañ koy defee war nañ ci itam boole wàllu société bi muy nag fexe ba askan wi nekk ci ay anam yu mucc ayib ñi jël kàddu yépp ci séance bile daal nañ koy xamle. terrorisme boo koy fànq wala boo ko bëggee fànq euh, doo jël rek lépp lu jëm ci instrument militaire nga di ko ci teg da ngay boole aussi di seet nit ñi ci seen judduwaay seen dëkkuwaay seen dundin ba xam est que amul luñ ci mën a changer. xeex terrorisme nekkul rek mbirum benn réew ñu jël kàddu ci séance bile jàpp ni faw nag réew yi boole seen doole ngir nag mën a jàkkaarloo ak woy defkatu ñaawteef yi. jaajëf Codé Ndiaye mu doon président Macky Sall jibal kàddoom ci kanamu euh, ñi nga xam ñoo ŋànk euh, lépp luy àtte ci Sénégal kon barab bu symbolique ak ay kàngam yu am solo ci réew mi. président Sall Demba ba seetlu kon jot na Sénégal gep fagarum ci mbirum terrorisme ndax neexul fang. D'abord, abord bala ñuy toj fagaru gi lan la professeur Yankoba Seydi lan moy wouté ak baat mbirum terroriste ak djihadiste parce que da ngay dégg baat ñu nan la jihad ku ne xam na ni à l'époque, il y a de cela 1400 ans jamonoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallam jiyaat na jamono boba ak lama ci waxone ginaaw ba diat léegi jeex na euh, bakkan xëy na moo des. nañu wér ganna yi waaye jamono dox ba ñu déggaat jihadiste ni di wax terroriste d'abord ñaari bat yoy noo ñu koy mëna séparer leen. c'est ça maa de monsieur remercier diko tambali surtout puisque euh, da ngeen wax ci zone Sahel. <coughs> il faut dafay laaj toujours ñu jéem dem ci à la source. <coughs> li ñu gis mu am ci sinu rew yi sank tudd nga Mali. <coughs> Euh, tudd nga Burkina. Que euh, Nigeria. donc il faut que nous xam la euh, source bi la. fan la mhm. pour que nous nga xam mhm. bien sûr alors il faut que nous dem le massif du Fouta Jalon. Mhm. massif du Fouta Jalon euh, massif bi pratiquement 50 000 kilomètres carrés la. ay zone

ba la nga xam ni nit ñi am culture yu bëre cosaan yu bëre ñooñu yëpp daje nañu foofu. Mhm. ñu dem ñu am ay coow yu commencé jot puisque nag euh, ñu bokkul fu ñu jógee. Mhm. ba pare ku ne am ambition soxla li nga xam ne mooy ngëneel ci zone yooyu. dafay bu yàggee. su mhm. nekkante ne diggante rataxul trop dafay indi loo xam ne. lu bëgg la c'est ça ba pare mbirum suuf commencé indi ay coow ak euh, ressources yi nga xamné ne bëriwul naam wanté loolu itam nek na source coow yi nga xamné commencé won na am. loolu mo dem dem ba ci en 1726. Mhm. ñu proclamer lu ñu alors une guerre sainte. guerre sainte bi li ci top après. Mhm. une véritable révolution sociale boo xoolee zone bi donc source li nga xamné ñu ngi koy dund fi puisque boo xoolee Mali mhm. boo xoolee c'est à peu c'est exactement le problème bi jamono yi ñoo rek mais source ba fofu la alors jihadiste jihad lolu leer na mhm. baat bi mooy dañuy def jihad fexe ba ñi nga xam ne ñu ci diine yonent bi ñu fexe ba ñu indi leen mhm. bu dee jar sax ñu jël euh, gànnaay ñu def ko comme ni mu amone jamono yi passé ñu def ko mhm. ba jamono dox ñen ñi gis ne jihad sax mën nañ ko def ci benen anam bo xam du aajo sax nit ki jël euh, ngànnaay rey nit te lolu amna na évolution moo ko indi alors terrorisme bo xolé li ci ëpp baat bi mhm. ñi nga xam ñom ñoom xolé xoolee euh, loolu à distance mhm. muy occidentaux yi ñu créer ko muy terme bo xam puisque ñoom loo lu lu lu xewul nit mënu koo tudd mais bu demee ba xew il faut nga mm-hmm. wutal ko tur bu ko defee nga mën a xool naka ngay eh, jëf jëfe ba mbir mi ñu xam ne lii la mm-hmm. ñu daal di ne terrorisme boo bëggee définir terrorisme mm-hmm. euh, di ci ñu bëri yoo xam ne ni mën nga bañ a gis ñoom li ñu naan terrorisme mën nga mën nga ko bañ gisee noonu puisque euh, jël rek tiital ay nit ñëw daanu seen kaw

zone bi nga xam ne moo gën a néew doole ci maanaam ñi nga xam ne ñoo mën a liir ak bind puisque Nations Unies ni mu définir définir analphabétisme mooy ñoo xam ne mënuñoo mm-hmm. jàng ak bind phrase bu gën a simple mm-hmm. boo xoolee ci loolu suñu réew yi ñoo Afrique de l'Ouest moo gën a suufe ci mm-hmm. wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a bind ak ak jàng d'accord naa ñëwaat ci point bu c'est important mais professeur da nga laal sàng point boobu solo ci histoire kon mhm. lépp lu indi mbirum xëccoo ak mhm. xeexoo mhm. mooy gànjar waaw maanaam meññeef ci suuf ñu war a ko mbelli absolument wala suuf muy espace bi ni ko waxee wala ndox ñu soxla woo ko ngir jëfandikoo ko kon dafa mel ni dëgg-dëgg kon mbir yi <clears throat> boo gisee sànq laaj la lu tax ñu war a toj diggante terroriste bi ki nuy wax mhm. terroriste mhm. Mhm. ak jihadiste bi ah c'est dama bëggoon lu bari leer kon ci biir ki nuy jàppee terroriste tey ka koy jàppee est-ce que sax mënta dem moom ba doon terroriste moom itam ndax action yi nga xam ni ñu koy mënee moo tax tey bu ñëwee ci Afrique tey conflit yooyu di am ndax ba tey dafa amul euh, organisation boo war a am dafa amul xëy na répartition équitable bu war a am ba tax histoire dem ba terrorisme dikkaat wala lunu fabriquer la tegal ñi ngir naxa suñu réew. kenn fabriqué wu ko mën naa am ay ay éléments c'est boo xolé yenn aspect mën nga ne amna lunu fabriquer mais li bëgg wax mu leer. parce que man tek na ci sama bëtt ba nga xamé ni 2012 jihadistes yi ñëw nañu normali yi. ñu def mhm. li ñu def. Euh, ba après armée française intervenir en 2013 jëlee leen foofu. Mhm. man bokk naa ci ñi nga xam ne USAID ak seen programme bi ñu tuddee PAP Mali. Mhm. ñi nga xam ne ni dañoo ànd ak suñuy collègue marocain ñu dem mhm. Tombouctou. te Tombouctou zone chaude la woon. maa ngi fàttaliku d'ailleurs boobu comme 2014 la woon nit ñi bi ma defoon Facebook bi ñu liggéey sax maa ngi kon ñu ne waaye mais loo fiy def. Mhm. nga xam ne foofu ñu ngi rey loo fiy def lu tax du man leen fii de jàmmaa fi nekk. donc dañu demoon ngir dimbali jeunes yi nga xam ni. Nous vivre traumatisme mhm. occupation djihadiste bi di formés euh, di di former mhm. euh, institution libre mhm. ak naka a ay acteurs nga donc bo gissé c'est parce que justement Mali bobu may wax Bamako Kidal diggante Bamako ak ko waay mille sept cent kilomètres la. Mhm. booy tukki bu dee en temps normal lu ma tuuti tuuti ñaari fan ngay def. te am na partie sud boo fa jógee. Mhm. tali amu fa. amul dara dara dara bu tawee nag mhm. dégg nga.

te comme li ñu naan la nature a oreille fal en tant que ay état. exactement seen doxalin ngir mën a yemale ak yenn gox goxaan yi. moo amu fa sax amu fa sax d'ailleurs loolu moo tax. tegal foofu boo gisee ñu naan azawad ñu naan ñoom dañuy moom seen bopp. c'est parce que dañoo gis ne amul état comme état amu fa ñoom ñu mm. créé. ñu créé loo xam ne ñoom jàpp nañ la ah. moom moo war a euh, donte azawat yàgg naa demandé indépendance am. Mm-hmm. yaa ngi dégg mal ñu naan la <clears throat> ansaaru diin naan lu mel ni ki euh, ay kuréel yu mel ni ak mi mhm. tasaaroo ba dugg biir Niger ba wàccoon dugg foofu kuréel yu bari lépp ma koy xool daanaka mat na fukk ak nangam juróom-ñett ci ay kuréel mhm. jihadistam mhm. waaye tudd nga sàng France ñi gaa yi jóge Libye su ma ñëwaat ci yow naa ñu ci foofu ñu xool lan moo indi jihadis yi jóge Libye ak ay ngànnaay dugg biir Mali te booba am na état bu amoon Libye nga fa nekkoon chef d'état faat nañu bakkanam mhm. ci anam gu doy waar mhm. naa ci ñëw pour nga préparer ma foofu alors bala may dem ci le doyen journaliste bi damay dem ci maam euh, Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba nga jiite AIS mhm. bi nga déggee ñu définir baatub terroriste ak djihadiste diine mi ngi ci biir ndax ñi koy def ñoom beneen instant dañuy jàpp ni diine ji ni ko ñeey doxaleem ak ñoom ni ko gisee bokkewul aloor foofu lan la diine Sénégal maanaam tey diine benn la mais yow mi jiite tarixa yu maanaam kuréel gu ëmb tarixa yu Sénégal yépp ku ne am ci biir gis-gisam ak xalaatam ban appréciation ngeen am ci jihadisme bi tàmbali law jóge ci Afrique di law di law ba ñëw nag ci frontière wu Sénégal waaw ok jërëjëf Modou Mbacké jërëjëf professeur euh, bala may dugg ci loolu damay rafet lu waxtaan wi nga teg léegi mhm. mu jóge ci président de la République Eh, ci lim wax ne war nañu garder bu baax sunu lislaami Sénégal wax na ko ci teewaawoon répété wat na ko ci ndaje mi am ndax ñom ñoo ñuy gëna informé ñoo ñuy gëna xam wër ndax président lu yendu ci réew mi wala lenn ci sous région bi xam nako ko bokkut ak man mi wala bokkut ak un professeur bu gëssok yoy donc kon ñom buñ ba xam ne euh, l'islam bi ñu yor muy l'islam Sénégal mhm. l'islam bu mucc ayib la l'islam boo xam ne xamul xamul xeex tolérance la xam tey jii damay wax ne réew yi naar yi ñëpp ñee nañ Sénégal seen l'islam réew africain yi ñëpp ñu ñee ñi même ñu dul ay julli sax bëgg nañoo ñëw Sénégal ndax xam ñu réew réewum jàmm réewum dal la loolu nag li ñu ko may mooy lislaam sufi bi nga xam ne moom la moom la fi mag ñi baax ñi bàyyi moom la ñu dund ndax yàlla dañu dimbali Sénégal nee leen fu ñu seytaane mën a jaar ci tarixa yi mun du am ndax yàlla daa def réew mi mag ñi fi nekkoon ñëpp benn école lañ doon jëlee seen i xalaat wala lañ ci lañ doon tabax seen yarin école sufi boo demee Serigne Touba ci la doon yare mhm. Sidi Hadj Malick Sy ma Abdoulaye Niass bu Kunta Ndiassane si Laayeen ñun mhm. ñëpp mag ñu ñëpp kenn ko ne école sufi nga doon yare say say say maanaam say say say say say say doxalin mhm. léegi nag loolu lépp bu amee loolu lépp bu amee daf ñu dimbili ba ci réew mi bi ñu tollee ci jamono bi ñu toll terrorisme mu takkarnaase réew yu bëree bëri euh, perte jàmm ji ñu amoon rawat na foo xam ne lislaam amoon na fa ñu perte ko mhm. kon jàpp naa ne bu Sénégal demee ba mm, xaw na gënoon na fee yéeme ci wàllu terrorisme ñu koy wax mhm. ci ay ci yoo xam ne jàppoon nañu ñu def mhm. nañu mel noonu waaye yàlla ñu ba Sénégal traversé yooyu yëpp ba alhamdulilahi rabbil alamin ñu toll fi ñu toll loolu nag bu amee li tax ñu mën a traverser yooyu yëpp ak maanaam défi yooyu yëpp ñu mën ko jéggi mm-hmm. ba tey ñu nekk jàmm ak salaam loolu li ñu ko mooy mooy islam suufi boobu mooy mm-hmm. islam paix et tolérance mais ndax ah. mais ndax jàmm jooju tey bu demee président Sall delluwaat baa mu waat ni na ñëpp jóg fagaru mm-hmm. ndax amut luy raam moo xam lu nar a bëtt ñag bi wala lu ñagaale ci biir ñag bi maanaam li juddoo ci biir réew mi ak li war a ñëw dugg si ndax amut

gis na ko ci biti am na loo xam ko ci biir mhm. ndax am na loo xam ne yéen ñëpp yaakaar na gis ngeen ko ci biir mi ñoo xam ne ay courant lañ yu bees mhm. yoo xam ne nekk nañ ci nëbbutuñ fenn mhm. xëy na ci réseaux sociaux yi lañ nekk mais ñun xanaa ko mu AES li tax ñu taxawal ko ñun du état moo ko du kenn moo ko wax ndax dañoo xam ne réew mi ñu nekk diine l'islam moo fi ëppale waaye état diine ji moo ko fi ëppale ci ay maanaam ay maanaam bu ñu ko tuddee ay këram mm-hmm. maanaam ay jàkk ay mosquée ay tant ay kër lépp lu mën doon nga gis ne diine moo fi ëppale mm-hmm. tey jii bi ñu xoolee la xaw Mali nga xam ne ñoom bi ñu jógee di attaqué mm-hmm. demuñu gouvernance demuñu palais demuñu préfecture fan lañ dem Tombouctou lañ dem parce que yee am nañu ko aar mais tey jii terroriste bu ñu duggoon Sénégal tey duñ dem palais duñ dem benn camp mais foofu am na ñu ko aar mais fa lañ njëkk suñu mosquée yi te loolu lañ doon bind parce que ñu nekk Tumbuktu ñu daaneel bibliothèque ya fa nekkoon patrimoine ya fa nekkoon ak mbind yi xam ne lu yàgg-yàgg la tasaare mhm. mhm. loolu mu am Tuubaa mu am Tiwaawan mhm. ndax Tumbuktu ñu fa tëddoon ñu ñëw di leen di leen siyaare ay nit yàlla ñëw di leen siyaare di jël seenu njàng mais jihaadis yi jugoon dañoo wax ne loolu lañu fa bëgg jël ndax loolu shirk la bokkaale wala yes billahi taala loolu la ñuy wax ne shirk la bokkaale mooy da ngay bokkaale yàlla associé yàlla ak doomu aadama di leen jàmm image image boobu ñoom la amoon te image mhm. boobu ñoom moom la gis Sénégal mhm. ndax boo demee Touba ña nga ci xam du suñu Touba yi mhm. l'islam ayiwut dem ziyaare bàmmeel l'islam ayiwu ko déedéet l'islam diggal la nit ki dem ziyaare bàmmeel ñaan ñaanal ko fa tëdd waaye ñaan ci barkeb ko fa tëdd mais ñoom loolu dañ ko bañ moo tax ñoom ñu jug loolu mën nañ pos ñu daaneel kon ñoom bu ñu ñëwoon senegal fa lañu njëkkee mooy Touba wala Tiwaawan ñun nag loolu lañ xam ñun AIS di ay ndaw yoo xam ne ba jàng jot dañoo jàngal ñoom liñ jàng jàng nañ ko ndax waxoon naa ko keroog forum bi forum de la paix bi nga xam ne moom lañu def barki dem jëm ñaaj bi ñu mhm. mais ministre de la ministre français daa wax ne mhm. euh, mbirum terrorisme ak jihadistes yi mënees na leen a repousser mënees na leen xaw a waaye mënu leen fee jëlee mhm. loolu la wax waaw man ma xaw ëpp maanaam ma xaw koo wuuteeg moom foofu xalaat ndax dama ne loo jàpp yow ndax li ma jàpp mooy euh, violence kenn du ko kenn du ko faj violence en général loolu ñu wax xëy na bu fekkee na bu gàtt pour dàq leen mais buñ paree ndax da nga daw rek Euh, te te jii jiimoo dindi idée bi nga xam ne moo leen poussé ba ñuy def lu mel noonu. Mm-hmm. loolu bu amul dañuy del si waat parce que dañuy dem waajaat mm-hmm. mais bu ñu ñëwaatee mën nañ a bettaat mm-hmm. mën na leen kon li ñu war a def mooy jihadistes comme ñuy def terrorisme li ñu def ci xale yi ba ñu def ay attentat ba ñu rey bañ ko def ñoom dooruñu leen yar ay dañ leen dañ leen théorie endoctriné leen mais pourquoi ñun tamit bu ñu koy faj mënoo jaarat foofu te mën naa nekk mhm. ba ñun ñun ñun Sénégal ñun ñun ñun ay au niveau de l'AIS mhm. ñun bu ñu taxawalee kuréel gi ñu taxaw nga murit xaalis tijaan laay ñëpp la boole te wax taxawuñu ko rek ngir dañoo bëgg tarixe bi ànd nag benn mhm, déedéet dañoo wax ne dafa am ay défi AIS yu ñu gis ci réew mi Sénégal gis ko Mali gis ko fépp terrorisme moom terrorisme acte mais puis terrorisme verbal lañ fi gis ñoo xam ne ñu taxaw uniquement mais sëñ Mame Cheikh waaw euh, bu fekkee dafa am terrorisme verbal mooy kaddu fois balaa jota di am daa fekk joote am ba pare maanaam violence verbale mooy indi violence physique effectivement est-ce que tey deug dëgg nag ndax damay fal di wax xam nga comme que ñun dañoo dëkk ca kaw ga ah di ay baykat ci xamna naa ne kuy yëngu ci ganjax nga su la waxé li mu bëgg wax da nga comprendre da ngay yor sa saakum ñebbe mhm. tak ko ba rafet dara dugg ci biir waaye gunóor juddoo ci biir sëb ba mhm. ndax ci biir Sénégal bi ci biir saako ñebe bi amul gudóor gudóor ci biir ah, dafa fees dell Sénégal li ñu am actuellement yi moo gën a garaaw hmm. terrorisme verbal moo fi yan ñëpp yaakaar na dégg ngeen e, maanaam ñi nga xam ne suñ kànga mi am nga xam ne bu ñuy wax hmm. l'exception sénégalaise bi ñu ko dee wax tey ji bari dañuy jàpp ne mooy wàllu njàng mi hmm. wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wane daal ñu jàpp ne loolu la ak intellectuel gi nga xam ne ni ñaa ngi koy woote ak xel mu intelligence bi mais loolu am nañu am na ñu ko ëpp ëppale te amuñu jàmm buñu jàpp ne ñun Sénégal ñu sut ñëpp ci intelligence ci wàllu mën a jàng ci wàllu nite déedéet am na ñu ñu ko ëppale amuñ jàmm mais li tax ñu ne l' exception sénégalaise ba tax Sénégal di nit pire ba tax Sénégal am yu mu jomm ba tax mm-hmm. Sénégal dund jàmm ak salaam mooy l'islam sufi bi ñu am mm-hmm. Mm-hmm. mais Arabie Saoudite amuñu lii Sénégal am Yaman amuñu ko Irak amuñu ko Libye amuñu ko te foofu l'islam jaar ba ci Algérie ak feneen feneen mhm. Mali wax nopp Nigeria wax nopp xool leen fi l'islam nekk yëpp te tourisme penn fu am jàmm ba mu des Sénégal d'accord du état du mhm. état ay état état moo de mhm. dëgg dëgg état moo taxaw de pour sécurité pour mën a jàpp nit ñi de déedéet daf fekk ne am ñu jiitu ci bopp Sénégalais muy sunu mag ñu baax ñi d'accord yar leen ci tolérance yar leen ci nit yar leen ci lépp mën doon léegi moo tax man la terrorisme verbal boobu. Mhm. dafa am ci biir réew mi. dañu ñëwaat xam ne dañoo mhm. jug di. Mhm. wax mag ñu baax ñi. di tudd Serigne Touba. wax ci moom a a a saafara. loolu yaakaar naa ne kon dañ ñëwalee ak yow incha ndax bu demee ban xool xam ne kon wax dëgg yàlla kon li juddu ci sët bi mm-hmm. ndax sët la ko bën a nga ca biir effectivement kon li bënn yëf yaa ngi ci biir réew mi effectivement euh, ci xëy na kon faaw ñu taxaw ci mm-hmm. nañ ci ñëw léegi yaa ngi tudd sànq ni ay ndaw mm-hmm. la ñuy endoctriné maanaam mooy def ci seen bopp leneen lu ci nekkul woon euh, Mamadou Baro journaliste nga chercheur sànq sa biir présentation da nga euh, yore commission jeunesse kon am nga wàll ndaw ndax muy ëllëgu réew bu fekkente ni ñi bëgg soppi jamonoom ci ay ndaw la ñuy tex seen gàncax hmm? loolu moom lan moo war a doon taxawaayu ñu war a encadrer ndaw yi ëllëg muy la jeunesse sénégalaise bul ko yaatalee ba ci Afrique ngir ndaw loolu ñu mën ko encadrer est tant que yooyu déjà ñu ngi ci d'abord. waaw xam nga euh, question terrorisme question bu bu bu xaw a jafe la. Mm-hmm. lu tax mu jafe d'abord mooy soo jëkkee ci wàllu baat bi d'abord. Mm-hmm. xam

avant il y avait des concepts dans les années 90 comme ay fondamentaliste comme ay intégriste hmm. am na yeneen bu le terrorisme la savez ce lan la L'idéologie hmm. idéologie bi ko terrorisme, yi doon yi lal terrorisme xamoon nañ ko aussi hmm. mais boobu dîner, ci tudd diine dans daawuñ ci tudd islam bi après nag dafa évoluer xam nga Sénégal par exemple du tey lañu commencé am culture de terrorisme de waaye mais ak manière parce que si on ci histoire même ci indépendance. Mhm. les partis de gauche. ils ont jóge fii di former URSS. service sécurité yi au Sénégal ils ont daan am ñu ci mhm. terrorisme lañ ko parce que parce que ñi daan dem di à URSS mhm. dem champ de bataille. foofu ba am ay grade commandant command am ay jang ko. ba pour les révolutions armées donc loolu benn la mhm. ci wàllu dîner diine église chrétien mhm. daanañ utiliser doole pour noot doomu aadama -hmm. pour yaatal seen mbir loolu ñu tuddee les croisades mhm. mais ci at yu wees surtout dans les années 70, dix wala bien avant amoon na mais fa ca la gënoon fës mu am nag loo xam ne parce que Sénégal soo waxee ne euh, yonent bi dafa waxone dañuy jóge ci jihad bu

ñun ci xaal pulaar mhm. soo defee jaloore dañ lay wax a felli jihaad mhm. soo defee jaloore mhm. comme professeur def euh, doctorat am réussir ko suñ koy tagg dañ naan a felli jihaad maanaam yow taal nga jihaad ah. yow yow sox nga ci jihaad maanaam participer nga participer nga am nga honneur parce que dafa mel ni yow dañ la dañ la jox grade ki dem jihaad ay symbole la léegi léegi lu tax léegi jihaad boobu nga xam ne Cheikh Omar Foutiyou def na ko mu amoon projet politique pour Sénégal ak pour Afrique mu fondé wu sur ay valeurs islamiques pourquoi même terme boobu ñu utiliser waat ko pour ay ndaw yoo xam ne amuñu projet politique xamuñu fu ñu jëm te dañuy déstabiliser àdduna bi lépp kon mi ngi tegu ci communication ba pare ñu xool tamit loolu est-ce que ñun lu ñu moom la wala lu ñu indil la lenn li wax na ko sànq feeñ na ci professeur xëy na xóotalu ko lenn li si ñun la juddu parce que mbiru idéologie la mhm. mais lu ci ëpp aussi dafa am ñeneen ñu am intérêt ci loolu utiliser ay nit ci walu diine tuddé len même jihad pour def corrélation ak diine mhm. pour suñu bëggé daaneel yenn réew ayoo ko foofu boo boo États-Unis ak dëkk yu mag yi mom feeñ na mhm. jihadiste bi entre guillemets soko jëlé processus am fan lay commencer mhm. dañ koy njëkk japp ci walu drogue japp ko ci walu trafic après duggal ko kasso lu ko jutt ay tuuma lay doon waaw suñ ko duggalé kasso su fa défé juroomi at amna luñ ko fay def lo xamné ne su génné mhm. day dem rejoindre ay nit. waaw day xéx légui nak gaa né ne. donc li leer moy à 90% mhm. dafa melni amna appareil buy buy buy buy dimbalé ay ndaw. Mhm. di len endoctriner. pour pour ay kii. pour ay pour xéx légui aussi amna lo xamné ci ñun la juddo li tax mu juddo ci ñun. ci Mali laay joxé exemple. Mali avant guerre Libye bi nga xamné faut aussi français yi ñoo ko aussi il faut ñu wax wa xam nga loolu question bu ma réserver professeur la ndax duñ ñako ko français yi ko après bi loolu amé mhm. bala muy am mhm. ci ci fin année 60 mhm. zone bobu muy wax Mali du Sénégal Mali dafa yaatu mënuñu téye état bi mënul téye Mali mu am ay zone de non droit mais dans les euh, euh, ci fin wu 1960 année 60 jëm année 70 trafic bi xewoon ci zone boobu dafa fësoon mooy ci wàllu drogue ci wàllu euh, cigarette mm-hmm. ci wàllu trafic de médicament ak ci wàllu même trafic d'organe mm-hmm. nga xam ne cëru doomu aadama yi ñuy rey mm-hmm. léegi nag bi ji bi libi bi tasee nga xam ne def nañ fa lañ fay def armes yi génn na dafa am ñoo xamné dañu dañu profito ci zone bobu nga xamné amul sécurité té mhm. amul état mhm. état sax présent wu ko parce que mënu ko won mhm. ñu jël fa nak ay ndaw yo xamné dañ leen lavage comme li sëriñ bi doon wax légui raxas seen xel la neen ne leen yéen lii projet diine la naxe leen pour lolu pour mu fës tey da ngay dem Europe man dem na États-Unis seeti fa def fa ben gëstu bo xamné suñu ben mam jamono esclavage déjà boo xam ne ci jihad la fi joggé ñu japp ko def ko esclave mu dem Caroline du Nord Caroline du Sud ensuite dem Caroline du Nord ñu koy wax Omar Ibn Saïd jumaa ja ba ma fa demee di julli àjjuma da ngay fekk ñoo xam ne dañ naan démb démb lañu jógee prison ñu ngi takk seen i jaaro te pourtant ñooñu tey mën nañ xëy au nom de l'islam jël arme léegi ne ñu ngi xeexal islam kon euh, du Baro dëggal nga ni kon am na ku am intérêt ndax boo ma nee Mali dafa am zone bu état yëgut mhm. mooy aswaat bi nga xam lu yaatu la ndax naka xaw na ëpp Sénégal moo ci boppam ansaaru din taxaw ñeneen ak ñeneen taxaw ni ñoom dañuy fippu mu ne fekk na foofa ñoom fan toog ci suuf gànjar ma nga fa bi ma ah, koy gëstu gis naa fa lu bari or jamaa sax ñu koy wax ni ma nga fa zircon waxatun ko manganèse bi euh, lithium euh, lu ci bari ci loo xam te ni tey alal ju tëdd foofu la zone boobu fa la guerre bi déclenché wu ci fa la ëpp mhm. kon njortu nga ni loxo beneen mi ngi ci biir bu bokkul ak loxob doomu Afrique yi ndax am na ku ne ca bitim teg bëtam ci gànjar gi fële mu gis benn occasion na ca profité ngir taal daay gi yaa ngi tudd sànq libi bi Xadaafi daanoo ban ni jàddi fii ñëpp di ko dégg ci rajo. ñu ne ñu ngi départ embarqué wul si Mali. ci amul benn arrestation bu nu def contre ñoom kon ndax dafa am complice bu nekk bitim réew. balay loolu euh, sëñ euh, Cheikh Mbacke dafa am lu am lu solo lu mu wax xam nga mhm. Sénégal mhm. la ci tradition mhm. mag ñi def nañ ku mel Cheikh Omar Fouti mais dafa am lu Sénégalais développé mag ñi développé won ba légui mu tradition na ci lu il faut ñu def résilience ah. résilience parce que bul Cheikh Omar Fouti jamono yi muy def ay yu ci parce que consulter dañ ko méthode bi méthode la. Mhm. bu islam mais ñun convaincre ñu mhm. am mhm. après jamonoom bo xolé ñom Serigne Touba Cheikh Maam El malik comme inspiré wu nañ ci li que la jot def. ñom biñ ñëwé dañ né rapport de force yi tollawul mais yoon bi aussi du suñu yoon. motax ñu indi yoonu euh, jihadu nafs. parce que jihad boko jëlé ci alcorane borom xam-xam bi dinañ ci waxat xam nga jihadu nafs même terme yalla bu koy wax. jaahi jihaadan bi bi am waalikum wa am fusi mën ngeen jihaat ci seen alal ak ci seen bakkan mën ngeen jihaat ci lépp jihaat daal action la boo xam ne booy jëf li koy lal ngir dindi benn mbir boo xam dina da ko nanguwut li koy lal yaa xam nag ban forme nga koy defee léegi nag ak lu laaj loolu benn leeral la woon mhm. li nga tudd léegi ci wàllu ndax am na lu ko waral mhm. mais am na lu ko waral ñun am na xeex bu ñu war a xeex mhm. mais dafa am xeex boo xam ne déparewul ci ñun waaye parce que réew yu mag yi suñu nous un intérêt ci mhm. comme bëgg ja bëgg jëfa jëriñoo comme mhm. faral di taal ay islam. lañ mhm. ko def ci benen rébellion. wala ethnie ak coup d'état. Casamance gi xam nga loxo bi ci ba ci li di parce que dañoo jaxassé dañuy ñëw jaxassé dañu sud Sénégal. ak rébellion en Casamance. ñu dem jaxassé sud Soudan. Hmm? diggante Sudan hmm. ak ak ak Soudan ah, du Sud. Soudan du Sud ouais. Boko topé toppee ci Sénégal bëri woon Omar El Bachir ak Riek Machar. parce que parce que méthode bi. Uh-huh. moy euh, liñuy ñuy économie de la guerre. Uh-huh. mooy xam nañ né pour tek loxo ci koom-koom mënoo ñëw rek ci dëkk bi rek né eh sen koom-koom maa ko parce que jamono jooju wessu nañ. mais dañuy ñëw alimenter ay guerre yo xamné. ne. Hmm? non seulement dana justifier sen intervention ñu ñëw pour intervenir. ci guerre bobu buy amit ci loxo africain lay jaare hein, bu dee ci biir Afrique la. mu nekk ay acteurs bu nuy actionné à distance. muy réagir. ba paré sax guerre bi limuy tang tang tang mhm. yow mom meun nga baña am jàmm do julli ji jak mhm. do tal dem marché. waaye mais pétrole bi di jaar mom mhm. da ko baare sécuriser bu baax té mu ngi dox. ok jërëjëf professeur wala docteur euh, journaliste bi sun doyen bi nga xam tay euh, moy Mamadou barom laaj dañu wàcc yow mhm. docteur yanko ba Seydi sang dama la ko junjël nañu ñu lolu moy par rapport ak nim ko waxee sang mhm. kon amna ko am intérêt ndax bu ñu xoolee bu ñu waxee terrorisme keroog bi euh, njiitu révolutionnaire révolution bi nek Iran mhm. ni dana fayu ci kaw États-Unis lu mu wax dina bombarder bu mu xëyee neen rayna 80 touristes américains kon nga xam mom deeroon na bat bi américains kon ku ne sa dépend ci ni ngay jàngate kan mooy terroriste. exactement c'est ça tout à ca ma gis ni ba tey ci wàllum terroriste wala tubaab yi bu ñu bëggee songum réew ni ko moom du Baro waxee sàngam dañ lay tuumaal. Mm-hmm. yaa ngi fàttaliku histoire u Saddam Hussein. c'est ça waxoon. Mm-hmm. kii moo ngem benn Ben Laden pour mu attaqué ñu. c'est ça lu def dugg ci mbiram. Mm-hmm. Xadaafi mi tamit lu wax. acca kon dafa mel ni tout le temps am na kuy actionné la muy doxal pour dugg sa biir réew. bu dee zone Mali. ñu bari dañoo tuumal dañoo tuumal France dañ koy wax dañoo tuumal France ni lu jig njàkk France mooy njàkk ndax ba mu tojee li dafa bàyyi gars yi ca ba tey jihaad yi si récupéré arme yu bari ca diis ca bari doole xarañ lool sophistiqué lool dugg biir Mali mhm. ay fan capitaine Sonogo bu ba nekkoon général ba capitaine ba daal di def ah, coup d'état mhm. donte dafa mujjee rate mhm. ñëpp ni nag dëgg dëgg loxol France ma nga ca biir ndax gis na fi ñu ko bëggoon def coup d'état sottiwul France da koo fëkk yóbbu Burkina Faso la mhm. Blaise Compaoré mhm. yàggul dara ndax ànd nga ñu jàpp ne ay liwén nag France mi ngi ci biir di jàppale sax jaddi fii waaw xam nga ñoom euh, <laughs> c'est-à-dire que ñoom musuñu ko nangu mhm. te duñ ko mës a nangu même si ñun xam nañu ni hmm. euh, kii wax ne réew yi amuñu ay xarit wante ay intérêt la ñu am <laughs> kooku njiitu France la woon

Je xoolee waxuma la euh, déjà 200 militaires Macron wax envoyé bi nga de mm-hmm. peau. Mm-hmm. déjà force Barkhane déjà am mm-hmm. hommes yo xamné ñom yoy lañ ngi fofu. bu bokul ak quinze troupes Nations Unies nga xamné c'est les soldats de la paix ñu ngi fofu. Yo xamné bokul ak 5000 yi nga la

mais dafa non non attends loolu dafa war a leer. Mhm. li ngay wax naan mu wool ñi ak lii président Macron. Mhm. dafa woo njiitu réew yi bokk. Mhm. Sahel waaw leen ndax bëgg ngeen armée française bi génn wala soxla leen ko. dafa mel ni kon loolu la wax mais xam nga loolu. waaw. <laughs> de mais moo tax ma naan la mais mais mais mais li ko tontu. waaw mooy lan soxla lañ ko. waaw mais mais question c'est une fausse question parce que question mhm. France soxlawul poser question boobu su fekkente ni. question, mhm. fa. Mhm. ay une question. qui fa une question. bu une question. du luy question. ay mais du xaar sax ba ñooñu une am day est-ce que territoire nga fan la France ça non seulement nous ngi foofu seen doom di dee. ba pare mhm. ñuy dépenser alal ju bëri. Mhm. américains yi bu puisque américains yi menacent, Niger. américains ni France di mhm. ni France mu la France di ñaanee di américains ñu puisque américains nous fournir renseignement américain li ñu am ci équipement France mi nga xam mi ngi fi amul xaaj bi donc France bis bo de ne Amérique dem na mhm. France le lendemain fa du fa def day dem puisque lu fi bu fi naree dess mhm. lim ci lim ci góob moy upp foofu lo xam ni xalaatu mhm. donc France déjà zone bobu zone normale bi xam nga frontière la ak Niger Niger Mom lay wax Mhm. mine d'uranium bi gën rëy ci àddina. waaw am na sax usine foofu la nekk. fala la nekk. te Areva. Mhm. booy wax uranium nga wax Areva. Mhm. bu France amul intéret foofu. mais wax ma fan la amee intérêt. France lii nga xam ne moom xam na ne zone zone nord Mali boobu. amul état dina baax moom mu samp fa. bu ko defee mu am influence boo xam ne ne dina ko may. lu mu bëgg def mu def ko donc mhm. France foofu mhm. am na intérêt tey am na intérêt ci conflit bi am Mali absolument loolu am na lu may dolli un peu nga analyser ko bala ngay jeexal fi nga mhm. toll bi ñu fàttaliku guerre Biafra waaw ci soir un peu bu def 2 millions de morts waaw lépp ndax xëccoo pétrole tout à fait ci gëstu gis naa ni France daana dawal avion wàcce ko ci forêt bi exactement jox nga nay rebelle yi ba pare taxaw fee. Mhm. naan bàyyi leen xeex bi. exactement demee kon mooy taal daay gi pare dem di jouer sapeur pompier. mais loolu mooy li ñu yàgg def. te du fii rek. Mhm. c'est-à-dire guerre bi li euh, Baro di wax rek. Euh, guerre <laughs> maanaam économie de la guerre loolu dafa leer fii. Mhm. donc fépp foo xam ne ñoom intervenir nañu. moo xam dañ leen laaj. wala laajuñu leen saa yu seen intérêt taxawee. ñoom dañuy intervenir. te loolu la ñu def libi loolu la ñu def nord libi bu ñu koy def du ñoom rek ñoom ñoo gën a fës mais dañ ko def ak Grande-Bretagne parce que David Cameron moom itam intervenir na mhm. ci euh, conflit boobu ñoom ñoo ànd mhm. def li ñu def ba noppi nag mbir mi gis nañu résultat bi lu mu jur mhm. donc ndax jaaxalu la professeur Les soldats a au munissement, presque 14 000, 15 000, munissement 15 000, pratiquement. Voilà. Je suis un militaire, mais si tu es policiers, tu es un force. Tu es 15 000. Quand 15 000, tu es un munissement, tu es force Bahan, tu 4 000. Tu es un Sénégal, base, aéroport Saint-Orbi, et Jas Belé, tu es un intervenir au Mali. Lolo, tu es un attentat. ay cong di wéy di am loolu mba nekkul li gëna dëgeural ni tubaab bi dal danaka day melni ni kuy ñew naan damay fay daay gi naan damay atté xex bi waye da koy jafal ndax ñu bari japp na ni li am barki démb diggante ay donzo ak ben etni fofu ay kat hmm. anam binlen songe. leen ci état dëgg dafa am ndax ñi ngi sécuriser zone boobu yëpp ba pare loolu am ba pare amaat amaat encore barki di am na ci amaat loolu lu muy tekki pour yow c'est comme boo xoolee Rwanda ñoom bi problème yi amee mhm. ñoom amoon na benn cercle bu ñu créé boo xam ne zone ultra euh, sécurisée la boo xam ne ni foofu ak loo dof dof dof dof foofu mun na fa am accès ñom fofu lañ doon recevoir ñepp ñoo xamne ne bëggoon nañ leen aar. Mhm. rawatina ñoom seen i nit ñi ak ñi nga xamne ñeneen yeneen force yi nga xam mhm. euh, ay dañuy bu dé kaw normali mom ah, donc normal c'est la même chose. Mhm. man bi muy joggé Tombouctou bu ñi ñibbisee. aéroport di joggé fu ñu nekk ñëw di ñew aéroport Tombouctou. nga xamne zone bi dañ ko sécuriser. mais dama né la bobu 2014 la woon. ñan ñoo nekkon ci fu gën metti fo xamne ne bu bu bu attaque amee ñooñu ñooy jëkkëdee front ba. mooy c'était le soldat malien te ñooñu amuñ benn équipement. Mm-hmm. après nag fan ngay gisee français yi. Mm-hmm. foo xam ne ni ñooñu maanaam ña ñooñu nekk chair à canon. ñoom dañu moo tax d'ailleurs nekk bouclier bi saa yoo déggee ne attaque am na. Mm-hmm. pour nga dégg ne soldaa français de na do de. ñooñu ñooy chair à canon te amuñu dara loo xam ni. seen état jox na leen ko amul équipement amul tous. donc France ñooñu.

Euh, daañu ñëwaat ci loolu léegi foofu laay ñëwaatee su ma ñëwaatee ci ci tour bi am ah. alors ma dem ci Serigne Maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba nga jiite AES mhm. sànq dafa am point bu nekkoon mhm. mooy fexe ba napp li yëngu ca suuf ba du jóg hmm? mhm. ba du bërbëri bay jóg maanaam daal fexe fay daay gi ca suuf tey bi nga fekkee ni xam nga ni ay liwéen am na lu judd ci biir dëkk bi loo xam doxul est que li ngeen di dox yéen AES yéen a ngi rassemblé bay dégg

ay yi nan la japp nañ len ñu dëggal ñom dem nañ sax nigeria bok bok aram wala dem nañ niger gis nañ kilifa sangam yoyu ndax tamit dëgg dëgg mission bi dina yomb ci yeen ngir ngeen mëna a na calmer jebi ba li ram bëtt rew yu bari du bëtt sénégal jërëjëf am na loo xam ñun def nañ ko ci way amna lo xamne ñun fa lañ mëna a suñ capacité aggu fa mhm. ñun liñ man moy au niveau de la yes te depuis 2015 bi léegi ñu ci liggéey te gisoon lu mel nii ndax ñun suñ euh, maanaam kuréel gi 2015 la taxaw. Mhm. état Sénégal jox ñu récépissé. waay mais bien avant la ñun lañ doon liggéey. Mhm. ndax man maa ngi seetlu bi Facebook doog a xew. xaw ma 2008 la xaw ma 2007 yooyu. 2006 2006 yooyu. maa ngi fàtte France dama fekk. ma jékki-jékki sama benn jarbaat boo xam ne fi ñu nekkoon moomu kon ne ma lii de lu bees lu xew ndax bu njëkk li ko jiitu ma ay caat moo amoon xeeti mel ah, noonu. waaw c' est ça ñu jékki-jékki loolu dugg si bi mu dugg see euh, ma gis ngay posté. dugal si photo wala bind mhm. def loolu mu tasaaru ci bi premièrement rek lolu da ngay tiit mhm. ndax ku jek jek tok ñu ubbi frontière yi manam amatul manam ni ma tuddé amut kenn ku la contrôler mhm. ci kaw jawu ji nga da ngay tok sa néeg dal di bind dara dal di sanni mais koku bu fekké né ab say say la wala ko xamné bëgg na indi idéologie yu xamné doyna war na waar koo xam ne daraan wóor fu mëna waxé ñu nan ko do fi waxé ñu jek jek ubbil ko ndan fay-fay go xamné lu ko neex mën problème day daal di commencé judd loolu bi mu amee man maa ngi fàttaliku wallahi yàlla may seere sama compte Facebook boobu sax dañ koo dañ ko pirate pirate mais ñi njëkk def vidéo di moytandikuloo Sénégalais yi ci phénomène bii may doog gis nga xam ne ñëpp a ngi koy jëfandikoo te saay saay mën cee jaar wax lu ko neex waaye tam am na njëriñ ndax ku def lu baax mën nga cee jaar def lu baax muy paaka boo xam ne ñaari ñaari bor waaw effectivement ñaari bor la comme paaka ci kër rek effectivement mhm. man loolu laa commencé woon na bàyyi xel mbir yi may dox noonu ba ay 2009 ma commencé gis groupe commencé xew ñu ne léegi xam nga bu nekk individu la woon di jàng ñu indi groupe xam nga dañuy améliorer rek seen kii ñu ne léegi mën nañu ubbi groupe yoo xam ne ñu ne mën nañ cee nekk waaye ba léegi yeeg dañ daan bind daawut am wax daawut am nangam mm-hmm. maa ngi fàttali groupe bi ma ci njëkk dugg ay groupe arabisant lañ ñu mm-hmm. wax ay 2008 mm-hmm. ñu tuddee mu taxa daara si loxo arabia mi ifriqiya maanaam groupe boo xam ne ñiy jàng arab te nekk ci Afrique ñooñu ñooñu lañ ci doon boole dégg nga de groupe ñi jang arab mom kay turi day jekk lool malien bang ci euh maanaam guinéen baa ngi mhm. eh, sénégalais côte d'ivoire yëpp ngi ci mhm. té yalla xam bi ma ñu ñëpp la ci fekk mhm. gis limi ci njëkk a nga xam ne moom mu njëkk a pour ma taxaw ba indi AIS moy ci la njëkk gis kuy dal ci ko tasawuf soufisme Bi Sénégal di dund muy jam ak salam nga islam paix et tolérance dañuy dund way xamuñu niko Niko bar wax légui wax na deug parce que nit ki da ngay li la da ngi wara jangat a Cheikh Fouta anhu gor yalla la won Euh, mujtahid la woon mhm. te gis na mujtahid li ñu ci wax mhm. mujtahid boo dee woon ba juum sax ku mhm. ko xam ne dafa dafa am xam-xam bay góorgóorlu ci di indi ay yeneen boo yenn sens neen boo juumee sax yàlla dana la yool ba ndax da nga bëgg lu baax nga bëggoon bu fekkee ne maanaam jaar na ci yoon ñaar yoon lañ la fay saml da ñaanu mujtahid mais ñoom Sëriñ Tuubaa bi ñu ñëwee ak Sidi Hadj Malick air boobu li nga wax dañoo jàngat xool xam ne rapport de force ak tubaab bi ak yeneen ak yeneen mhm. euh, maanaam li ñu dar ul mafaasi xam dañuy wax ci boo jàng ci euh, diin islam mhm. ci usul boo ko jàng dañuy wax ne mais loolu c'est vrai que li ngay wax ci histoire mag ñi nan doxale mais da nga tudd sànq point ba mu solo nga baal ma mooy par rapport ak les réseaux sociaux effectivement waaw ma ñëwaat tey ci gis ba ngay wax 2006 nga hmm. commencé comprendre léegi 2019 dafa a a moom laa lay wax ca hmm. gis nañ fi ay cas hmm. ba am sax ay procès

bëggula doxal dëgg ak jubal ba kenn def terrorisme faf moom mu dëpp nekk far terroriste bi. effectivement xam nga moom laa def gis nga gis nga ñun. maanaam maanaam pour ma gaaw rek. maanaam maanaam gis nga lool bi amee. nga xam ne moment boobu am na. gis nga groupe boobu groupe yi ma dugg. doo toll ci li ma laaj ni après nga enchaîner. waaw ba tey ba tey xam nga tamit bu fekkee na nga xam nga suñu réew yi ni ñuy doxalee bañ ku leen ne da ngeen ni not nit ñi wala boog. Eh, maanaam maanaam doxuñu ak maanute mhm. démocratie bu ëpp bi liberté bu ëpp bi mhm. maanaam maanaam loolu danañ yóbbe ba justice day mujj mhm. nekk malheur ci kaw nit ñi ndax bu fekkee nit ki def na lu dul yoon ak ku manti doon rawat na gis loo xam dana fàng loolu dañ ko war a teel a lijjanti bay bay ak bàyyi ga li nga wax ni mën naa dem bu wëlbatiku justice moo waroon réglé wala mujj nek malheur ci kaw nit ñi ndax am na loo xam bàyyi bàyyi bàyyi nañ xel doomu aadama te nit boo bëggee jubal am mbir bëgg ko faj maanaam bu fekkee jaarul yoon bu bàyyi xel kenn dana mett nag mais bu ñu demee tuuti rek nit ñi dana xam ne yow la nga doon faj kat ndekk bëgg fajoon lii lay am léegi justice nag bu bàyyeendikoo li ñu war a def lépp defuñu ko mooy indi lii indi li lii xaw am ci réew mi fan yi fan yi nga gis ko waaw mooy mooy mooy restitution yi xam nga ñu waxoon nañ ko mhm. ndax ñun boo xoolee gis nga whatsapp bii mhm. luy danger moo la gën a danger ndax whatsapp dafa garaaw mhm. ndax ñoom bi ñu ko ubbee ñun euh, damay wax ne ñun suñu réew yi Sénégal euh, euh, maanaam dañoo ñoragut dëgg dëgg maturité bu mat ci ñun ndax préparé wuñu boo dee gisee réew tubaab bi préparé nañ préparé nañ de hmm. tubaab bi kenn ku ne ubbi hmm. de ci am hmm. ba ci statut WhatsApp yi sax dañ gis ay règlement de compte da ci am dañ ci fayonte di waxante di jokkalante nga gis comme di ub guur WhatsApp am dajale ci ay ñoo xam ne kenn kon dafa mel loolu sëñ bi ajana benn sensibilisation bu ñaax leen ñoom nit ñi tàmbalee ko ci kër yi mhm. tàmbalee ko ca école ba mhm. ca daara ja ca mbedd ma ngir nag ñu xam Sénégal lan la war a doxee ci nag réew mi tamit dooy Sénégal doon ko dund nag ay gan nga fiy ñëw mhm. ndax libre circulation des personnes et bien biens espace bi ñu bokk muy communauté UEMOA euh, moo xam CEDEAO wala sax ñu wax Afrique manière générale daanaka nit ñaa ngi dugg leen dégg da ngay dégg ni Sénégal am na ku nekkoon Pikine wala ku nekk ginnaaw raay fu mu doon ma tooñ leen rek laay bëgg a wax mais nekku ni fa laa ko bëgg a ti <laughs> fa laa ko li am solo mooy dañuy wax ni nit a ngi ci réew mi di ak def ay action yu mel noonu mën naa am sax am na kook mi ngi biir DTV gii doon ma santu saw tudd du Diombul ñun <laughs> nekk terroriste ñun au niveau de l'AES xamuñu ko ñun au niveau de l'AES gis na ñun fi ñu toll nii mm-hmm. wallaahi eh, ñi may ñi may ñi may li may wax nii mm-hmm. waxoon naa ko benn euh, plateau wal fajiri bi coow li xaw a jug daa am insultes yi amoon boobu mu soo maa ngi ko nuyu moom invité woon mm-hmm. mais ñun liñ yor ci ay ay document wala ay audio wala ay révélation yu garaaw yoo xam ne kenn mënu la ko wax nga mën naa tasum réew ñun lu xew ci réew ñun lañ ko ñun lañ ko envoyé fi mu toll nii sama portable bu ma la ko wonoon maanaam audio bu garaaw boo xam ne dafa jug di dal ci diine hmm. wala dal ci mag ñi nga xam ne tey jii bu génnoon mën naa taalum réew hmm. ñun au niveau de l'AS ñun lañu ko njëkk envoyé te pourtant loolu liggéey nañ ci hmm. na depuis 2000 mën naa la wax 2016 2015 2016 bokk bi bi na communication la waaye nañ ciblé médias yi ak réseaux sociaux yi ndax li tax euh, réseaux sociaux yi moo gën a garaw ndax ñii yàq ay max lañ max day nekk ci bois bi di ci yëngu di ko lekk te doo ko yëg doo ko yëg te ñoom noonu la ñuy def boo gisee France réew yi mag yëpp am ay am ay problème mhm. mooy France léegi du caaga ne ab libyen mhm. wala boo ab naar mooy jógee ci réewam dem France def attentat mhm. déedéet mais nitu France doomu France fa juddoo fa moom la ñuy endoctriné via réseaux mu mooy YouTube la wala WhatsApp la wala ay texte yu loo ko envoyé gëmloo ko loo xam ne mënu ko mais malheureusement réew yi li tax ba léegi ak seen armée yi ñu yor ak seen euh, maanaam sécurité bi ñu am renseignements généraux yi ba léegi mënuñu mucc terrorisme ndax da ngay gis koo xam ne euh, li ñu koy a gis ndax dañ trafic dañuy wax trafic def mën naa jaar ci ressources yi defal la moo tax France am pare ñun nag mm-hmm. yàlla dimbaluñu Sénégal mm-hmm. duñ bàkku de waaye wallahi ñun biñu ne bërët li may wax ni Sénégal yi may déglu yi ma daanaka ñi may toogal sax sama mbokk yi mbokk yi may toogal mm-hmm. man suñu xanaa mën a teg si portable xanaa mën a bàyyi audio <laughs> ne jamono boobu maa ngi liggéey boo xam kenn mënu la ko wax mm-hmm. ndax liggéey de sensibilisation la ak conscientiser mm-hmm. ndax da ngay fekk koo xam ne waaw loolu la benn benn benn benn extrémiste la mhm. ndax dafa am ci biir Sénégal ñoo xam ñu extrême lañ mhm. du l'islam yi dund yontu sansen diglu ko yàlla sunu borom digal ko mhm. ndax yon yontu sansen daa wax ne iyyakum wal ghuluw fi diine moytu nekk extrême ndax extrême baaxut woon mooy dañu ëppaloon ci diine mooy loo gisee nga ëppal ci excessive maanaam booy wax day tàng booy dal day tàng déedéet diine équilibre la diine équilibre la gisee suñu mag ñi baax loolu dund moo tax nag ñooñu nga xam dañoo duggoon foofu doon doon endoctriner xale yi ñu dañu leen faa teel jiitu boo demoon tey jii am na sama compte boo xam ne ba léegi xam naa ne gars yi ko piraté ba léegi bloqué ko mm. waaye boobu plus de 500 vidéos ma nga coon mm. yoo xam ne anglais français wolof pour wax ak lañ pour wax ak pour wax ak xale yi rek d'accord dafa mel ni kon mission boobu faaw mu continuer xam nga sàng professeur daf ko wax yaa ko njëkk a wax ni am na ku am intérêt surtout intérêt gànjar ndax tout le temps gànjar gi mooy jur njàmbat li euh, ci Sénégal nag

Congo wala ku mel ni ki ñu ngi koy fàttaliku rek Kourouma. Mhm. gana ah Ghana ah, dëkk yu bëree bëri am na ku am intérêt ci ku weex lay doon occidentaux yi jóge fa ñëw jaxase leen Sénégal bu amee lu fi feeñ pétrole ak gaz nga dégg ay mbir commencé eh, ñun ban taxawaay la war a am nag. waaw léegi man li ma jàpp mooy. Mhm. Euh, d'abord il faut ñu déggoo. Mhm. ci li ñu bëgg a wax. man. école bi ma jàng man li ma xam. Mhm. mooy terrorisme ni ñu koy définir dañ ko war a xoolaat. Mhm. pour man terrorisme du bés bi attaque armée am. Mhm. ci dëkk. waaw. loolu bu amee. mooy terrorisme bi. Euh, nekk na nekk na violence physique kon am na fi. mais terrorisme su amee sa wet rek. xam ma léegi lañ commencé di réfléchir en termes du Sénégal de Sénégal. Sénégal mais Sénégal. Mali bu amee terrorisme noo bëggee wax ne Sénégal amul terrorisme parce que conséquences mhm. Mali a yi port bi mag bi ñu gën bi ñu gën di jëriñoo mais portu Sénégal. Mhm. Sénégalais yi ñu ngi Mali ñoo bokk benn frontière. Mhm. donc bu ñu le terrorisme en terme de physiquement. mooy ñëw nañu Sénégal wala dugg nañu Dakar yal nañ ci yàlla musal. déedéet terrorisme bu amee su lu la wër rek. wala fenn ci àdduna bi rek déjà. France a ngi Euh, am nañu lu mot ñetti junni wala ñeenti junni xale yoo xam ne ñu ngi ci ay champs de bataille. nekk ay terroristes te seen mm-hmm. doom lañ. Mm-hmm. kon loolu il faut ñu gën koo bàyyi xel. beneen bi mooy. Mm-hmm. Euh, mooy li nga laaj ndax euh, mën nañ ko. fagaru ci. fagaru jóg ak ay pexe. parce que am na am ñeneen ñu ci am. ndax fi mu bëgg a waxee mooy. waaw bu fekkente ni tuubal nañu France. boo gisee ma ci insister. waaw wax dëgg yàlla nag. histoire àdduna bi saa yoo xoolee ñun am Afrique francophone. France dafay yàgg def ay njombe nag dañ koy wax. xam naa fi ne ambassade ba nga may xool naa am waa ji may wax <laughs> ah, mais. mais dañ koy wax ndax ñun suñu Afrique dañuy waxtaane Afrique waxtaane Sénégal boo gisee ñu tuumaal France dafa bari action yi muy def li gi ci mujj barki démb rek waaw gis nga xibaar feeñ na que ni mhm. coup bu ñu monté woon la mhm. ngir jële ko pouvoir lu nu fa jublu woon na xël dëkk bi tey ma nga ne am na guerre civile li bi tas wu njëg ah, ndax kon Afrique wërta jóg ca teel ubbi ay bëtam décrypter message bi tubaab yi lancé maanaam càq-cax wi ngir mën a fagaru nag mais gis nga Modou yow affaire bi leer na xëy na auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñoom laa bëgg leeral xam nga xam nga dafa am lu <laughs> professeur wax lu am solo sax mu ne dafa am ñu théoriser woon réew yi les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts général de Gaulle moko ko moo wax. amuñu mbokk cest à doctrine la am nga li ñu mm-hmm. tubaab tubaab dudee doctrine manam ngëm-ngëm li ci walu diplomatie. Mm-hmm. xam nga wax na xam nga xam nga wax na léegi américains yi bokk nañ ci xeex bi Mali. Mm-hmm. mais ñom dañu wo renseignement. parce que ñom ci sen doctrine militaire ak diplomatique. mooy ne am na guerre yo xamné ne waruñ ci fës parce que suñ ci fësee. su amee représailles maanaam bu amee fayu daf leen exposé daf leen di exposé mhm. seen i njaboot ak ñoom seen doctrine loolu la mhm. français yi dañu nekk ñoom ñu gën a nekk nitu fit de quoi yu gën a mën a dem euh, parce que loolu mooy seen doctrine mhm. mooy mën nañ jàmmaarloo tàmm nañ ko léegi bala ngay wax tey démb waaw Casamance gii lan moo ñu indil musiga gi ñu am 30 ans de rébellion loxo tubaab bi ñu ngi woon ci biir voilà Mali bala bala ñii du Libye di daw. Mhm. bul rébellion nord Mali. MNLA. Mhm. MNLA euh, Casamance gi ma tuddu. nga ak MNLA bi ci Mali mhm. actuellement. chef rebelle fan la ñuy France ngi leen di entretenir di attends attends kon <laughs> tu confirmes que ni kon France. mooy suuxat ak a armé chef rebelle yooyu noonu lay suuxateen mbaa du kon chef jihadiste yi non c'est-à-dire que doctrine bi la cest à boo amee intérêt ci réew bu dee da nga bëgg a teg sa loxo ci intérêt yi défendre ko mhm. da ngay xool ñi ñi lay ñi la gën a jege loolu doctrine la. waa léegi nag ban doctrine la Afrique war a am ngir aar li mu yor. loolu nag mooy doctrine ban la Sénégal war a mën a am ngir aar li mu yor moom. te te ma su ma la bëggee tëjël euh, chapitre boobu. déedéet bul tëj kay ubbil yaatal kay <laughs> ubbil yaatal kay. ban doctrine la Sénégal war a am moom. comme que tubaab yi am nañ seen doctrine bopp am nañ seen wird di ko doxal. wird la tubaab yi yor di ko ah, doxal. Ah. ngir euh, jat li ñuy jat ñun Afrique. Mhm. lu nu war a taxawee. bu ma ko gàttalee ñëw Sénégal. ban taxawaay la ñu war a mën a am. Mhm. ba nag au moins. soo comprendre ñoom seen doctrine rek ak seen méthode. Mhm. yow da am saafara. man comprendre naa mais. kii seetaan dama ko bëggoon a waxal ne ko. Mhm. d' abord bokk na ci méthode yi ñu utiliser mooy suñu ree ci réew suñu bëggee teg loxo ci koom-koom. dañuy dem jëli ab minorité. dëkk bi du ñu jël majorité bi de. duñ dem jël wolof bi wala pulaar bi wala dañuy dem jël benn minorité. comme li xew Rwanda exemple. non même ci dëkku même ci dëkku naar yi euh, dëkk bi euh, Bachar al-Assad nekk. Syrie Syrie. Mhm. ak dëkk yi ko wër yëpp si àdduna bi. demal Yémen. c'est-à-dire que euh, jamono indépendance dañ daan dem jël ñi gën a faible ci lim. Mhm. minorité ñu ne leen ñu armé leen. ne mhm. leen dal leen ci kaw ñële. noonu la ñuy taalee rébellion yi ak kii bi léegi nag Sénégal. dama la bëgg a wax ne Sénégal du pays bu vierge. Sénégal dafa yàgg am expérience ci xeex. wax naa la fi légui parti de gauche wax naa la fi rébellion bu Casamance. té aussi euh, xeex Sénégal doctrine bi moom am doctrine. Sénégal amna doctrine ban la am doctrine diplomatique. parce que Sénégal nekul ci économie de la guerre. parce que Sénégal deku jamm la li mu ni muy waxee dëkku jàmm ci Sénégal. day maslaa c'est-à-dire que ni ko ni ko ni ko sëriñ yi euh, nekkee. Mhm. noonu la ko peuple sénégalais yi nekkee. xam nga loolu doctrine la. Mhm. il faut ñu wax ko ne tam Mali gi tam da war a xam ne Mali daanaka ñoo Sénégal ñoo nuru ay jikko ñoo bokk sax daanaka. waaw mais am nañ différence ba tey amoon nañ doctrine mhm. woote jàmm. am nañ différence ba tey Sénégal da ngay gis dëkk boo xam ne. suñu dara amul wàllu xeex. boo demee yeneen dëkk yi seen hymne national sax. mbaa lii nekkul ni mooy ndëgg sërëx bi <laughs> Sénégal daal nañ tëdd nelaw. Sénégal ñun amuñu jàmm lañu am ma foofu dama doon leeral rek. ba fas gaa yi bett la nga ah, ne ah moo ne bëgg a wax ne doctrine bi ndax warut am ak doctrine boobu ngay wax. non fagaru jàmm ji ngir peeg li nga yor. dama bëgg a wax ne doctrine bi mooy jàmm. Hmm. léegi fagaru bi ñoom aussi dañ koy fagaru dañ koy fagaru waxuma ne complet na am na ah. ñu ci war a joyante dëgg la mais dañuy dugg ci jàmm pour fagaru ko hmm. boo seetloo temps yi liy xew hmm. AIS bi judd ci wàllu association ak ñeneen association nga dem ñu nga dégg ñuy wax daara moderne nga dégg ñu wax bac arab bu ñu commencé def Sénégal lolu nga fogg né état bi da fay nelaw état bu nelaw du def lolu parce que ci geussu yi dañu gis né bokk na li indi idéologie ci réew bu bon moy dem taxani mat goudi Sénégal lolu lañ daan da nga for lu né da nga for mat ak jaan yépp tak mhm. Sénégal suñu dom yépp dañ daan am certificat dem jangé ji bitim réew indi ni mu amee nag ci wàllu arab loolu la amee woon ci ci wàllu français. waaw mm-hmm. mën na ko seede. heure boo jëggaanee rek am loo indi lu bokkul ci yow. suñu médecins yi njëkkoon génn Sénégal di jàngi URSS. Mm-hmm. di dem jàng ci yeneen réew yi Tchécoslovaquie. bu ñu ñëwaan dañ daan indi. di ko xalaatu foofu. Mm-hmm. donc Sénégal ba ñu gëstoo. xam ne lii di xeex lii di euh, xeex boo xam ne dafa départ dafa départ ci idéologie julli euh, diine dañu xam ne dem di jàng bi ci la ci ci ci la bokk ñàkk gi ci la bokk xale yi ñu bàyyi boyal leen ci la bokk. Hmm. ma wax lu am solo aussi. loo xam ne ca la bokk. te ñu ngi ciy jël saafara. Hmm. Hmm. mooy bu ñu demee ba suñu sëriñ yi. jëluñu seen matuwaay. te bu ma nee suñu sëriñ kenn ki rek exemple bu gën a gàtt. mooy ku mel ni Cheikh Mbacke. xam nga munoo nekk doomu soxna. nga jund ci famille diine. sa maam ak suñuy maam. liggéey ba taxawal fi dara. ñun ñu tëdd rek ci seen barke ah. di nelaw naan yàlla baax na. mais ñoom ñoom waxuñu ne yàlla baax na dañoo jóg aar ko waaw Sénégal dañu dem ba benn moment dañu wax dañu gis ne ndaw ñi mhm. dañu commencé amatuñu repère suñu demee ci mag ñi duñu nawati mag ñi mhm. bu ñuy wax mu am légitimité boo xam ne dañ ko dul gis wala mag bi du leen yedd ñu gis ñu melni Cheikh Mbacke tay nga xamne bu jógoon jël ben cadeau xam nga ni mu ko waxee ni dans la réalité mhm. effectivement lolu am légui mom cadeau bi muy jël di jooyante ay ndaw suko mhm. defulon tok ndaw bobu xam nga lu muy def xam nga lu xewoon Sénégal mhm. ndaw ñi suñu amaan masala buñ daan laaj julli wala wor au lieu ñu dem ci Cheikh Mbacke laaj ko dañuy jël sen téléphone lañ daan jël woote benn imam bu nekk Arabie Saoudite wala Malaisie naan ko sama julli bu ma ci juumee gis nga loolu loolu source am na ko internement mais loolu la la ñu commencé comprendre pour def ko kon daal faaw ñu peeg ndaw ñi ci xam-xam ci xëy ci tàggat ci xel ngi du jóg alors professeur bay wax ne ubbi nañ téléphone bi am numéro yaa ngi noonu ci euh, affiché ndax am na ko toog këram du ñu seetaan li muy li ñuy waxtaane am na ci xam-xam am na ci xalaat ñu ubbil ko antenne ngir mu bokk ci waxtaan ndax loolu mooy DTV dama ñëwaat Sénégal ah. mhm. mhm. nag wax dëgg yàlla histoire dafa ne bépp réew bu am lii ñu am. Mhm. il faut nga jóg peegu. ca teel. d' abord sama laaj dana xaw a gudd damay booree wenn def ko wenn taxañ. tey bu fekkente ni Sénégal bokk na ci MINUSMA. yóbbu ay soldats ca Mali. kon xëy na ka xeexal. mu jàddis bi. bind na ci sam ko Sénégal sama noonu la ndax dañ may combattre. y a de cela quelques années. président Macky Sall ni woon Arabie Saoudite mënta ñàkk dañu fi yóbbu ay soldats. c'est ça. ca foofa tamit conflit moo fa am. Mm-hmm. ca rébellion ca mbirum diine laal na ca. Mm-hmm. kon kooku tamit Sénégal dana ko def ci listam ni ah Sénégal gi kat bind naa liste bi. Mm-hmm. Hmm? loolu ndax buñ ci boolee département d'état américain mu waxoon ni Sénégal mi ngi ci list bi ndax. li daam Macky Sall waxaat ko barki démb rek élément bi njëkk jàll la nii mhm. lépp boo ko boolee mhm. exactement nag mhm. sa tiitaange fu mu toll bu fekkee tiit nga wala amuloo benn tiitaange ah, ci doxal mi Sénégal di dox ah, diplomatiquement ci ay intervention lan fa sa degré tiitaay fu mu toll c'est-à-dire que Sénégal même bu deful sax yooyu ngay tudd noonu ñëpp war nañoo tiit libéraux wax jihadiste bu ñu nekkee Mali gi Sénégal am frontière ak Mali ñu xam ne suñu frontières yi moom mooy ay buntu yu ubbeeku rek. fu neex waay rek tëb rek yaa ngi si beneen côté bi. te boo xoolee ñooñu ñuy tudd di si ñoom seen objectif. bu ñu paree zone yi ay Mali yi ak Burkina ak yooyu. zone côtière moo leen intéressé. professeur Baal moom. ma xool kii woote ba xam mi ngi ci zone côtière. wala mi ngi ba xam mi ngi zone ba xam mi ngi zone. zone aride ba xam mi ngi zone ba xam mi ngi zone centre ah. mbokk mi. waaleykum salaam wa yaa ngi ci ban gox. waaw maa ngi tuuba xayra de guy sew. kon kooku mu ngi ci zone centre ah. <laughs> <laughs> région Diourbel ndaka waa Touba. waaye ñëpp ñëpp ma leen nuyu bu baax ndax foofu moom voilà ma leen di ziar bu baax a baax a baax. waa ñu ngi lay delloo ziar. mais seen émission bi nag am na solo trop. jërëjëf. mais li ma ci gën a intéressé. Mhm. mooy comme tubaab yi bu ñu gisee benn réew Afrique bu ñu am intérêt. Mhm. bu ñëwee dañuy fekk nag déstabiliser bi ñi daal. Mm-hmm. comme léegi kuréel yu mag yi xam ne ay nu ak ay jaan yi dañu fexe bañ xaajaloo. Mm-hmm. bu ñooñu xaajaloo ba néew doole nag. waaye état bi day tuuti ci moom. Mm-hmm. lu mu sant état bi bii rek état bi da koy def. léegi nag ñun waa réew mi nag ñu ñoo war a comprendre loolu xam ne xam ne comme ñii maanaam comme ñi ñi ngaañ ci biir yéeg di ko dugal ci yéeg yëpp. xeex la boo xam ne tubaab yi daal ñu ngi ci daal. Mhm. parce que dañoo bëgg ñu pëccëxoo am problème murid dootu am doole. Mhm. doole xaadir xaadir am doole. Mhm. bu ko defee nag léegi ñoom ñu profité état bi dañu néew doole ci ñoom luñ sant état bi mu def ko jël suñu koom-koom ñu gën a kon daal faaw ñu gën a boole doole yi. gën a renforcer suñu unité kon. waaw muy cohésion euh, sociale beeg nationale bi lépp ànd nekk benn am ah. voilà ma lay gërëm bu baax ndax tamit loolu euh, tubaab bi moom faaw day xeeja li ñuy wax maanaam diviser premier régner kon bu see comprendre que ni dafay diviser kon nan bañ division boobu ci ànd nekk benn di bu am doole jaajëf lu bu baax a baax ah, baax baax na jërëjëf may ziar xalifa ba sëriñ Muntaxa Bachir ak mboolem xalifa yu Sénégal yëpp ñaan leen gudd fan ba ànd ak wér professeur fi nga nekk am na solo mais su ma tënkee laaj bi tey ngir ñu avancé mm-hmm. comme que xas nañ xam enjeu yi. ni tubaab bi moom li may pexeem. ban comportement la suñu état yi war a am. ngir nag mën a baare loolu. loolu dafay laaj d' abord ñu xam ñun en tant que état. en tant que nation. naka lan lañu bëgg a maanaam ñun ñu ñooy ñan. ak fan la ñu bëgg a dem. ak naka lañu bëgg mel. yooyu question boo demee nga boole lañ tontu leen. yow di nga xam déjà taxawaay bi nga nar am. ban la ba pare naka ngay jëflanteeg naka nga nar a jëflanteeg ñee nga xam ne ni mm-hmm. suñu sañoon yoo doo am jàmm mm-hmm. puisque yoo boo amul jàmm ñoom si la seen jàmm di mm-hmm. xañ loolu tànk que wuñ ko moo tax ñii seen liggéey liggéey bu am solo la mais liggéey bu metti la xam tax mu metti parce que doomu aadama gis nga nit bu la jarale bu bu la benn mbir jarale nga tak sa bop mm-hmm. ceinture explosive mm-hmm. nga dem mu wor la ne li ngay li nga fasiyene def yow mm-hmm. déjà nee nga ad au revoir déjà si adina paré nga pour dé bo xolé lolu force bi nga xamné ne lay pousse pour def lolu naka la ñuy def ba ñu mën ko duggal ci bop nit ci ngay xamé ne ni éducation dafa fort té ñom seen cible yi wax nga sank sank euh, biafra te biafra bo xolé 2 millions de morts la mm-hmm. ak xeyna lu ko upp tout mais djihadiste boko haram bi ñu commencé 1 mm-hmm. million de morts déjà presque la moitié ci mm-hmm. lo xamné ni du ki

seen seen way seen ok lay seen aha looy dolli ci waxtaan wi seen waaw ziar naa la maa ngi déglu waxtaan bi am na solo lool merci beaucoup jërëjëf waaye comme ni ma ko gisee ni ngeen koy waxee am na solo mhm. xam-xam génn na fa surtout ñaari professeur yor toog jërëjëf euh, beneen bi tamit man dama li ma gis ci Sénégal ak wàllu terroriste lu tax nga tiit comme comme ni ma koy tiit senegal Sénégal ci boppam mhm. ñoom ñooy gàng lool ñooy gàng terroriste ñoo koy gàng waaw man su may dégg waxu sénégalais yi. Mhm. day mel ni ñoom ñoo koy woo daal. déedéet waay. waaw dafa mel des fois. léegi yow léegi yow waxal waxal li koy dàq léegi yow. waaw li koy li koy. li koy dàq lan la. waaw liy dàq terroriste ci boppam. waaw ci ñun commencé ba pare. naka. mais bu fekkee ñun dañoo ñëw ñun Sénégal fi nekk nii. Mhm. Euh, sa xel du ci nit ki sax des fois yow jullit comme yow. Mhm. nga bëgg ko koo xoolee. nga ne ay action Mhm. wala ay waxam wala lu mu mënta def nga bëgg koo jàppee foofu comme terroriste la. Mhm. premièrement yow yaa ngi am looy woo. Mhm. waaw nañu ñaan yàlla. waay suñuy mag yi ñu ngi ko ñu ngi ko façon. muy diine Sénégal ni mu meloon ci ki nga xamante ne euh, murid la. tijaan la xaadar la laayeen la ibaadu la. ñu ñëpp ñu ànd ñaan def Sénégal yàlla def ci jàmm ñu ànd. bokk bëgg jàmm jàmm boo ko bëggee da nga koy bañ a laal tabarakal mais boo bëggee jàpp ne diw diw moom la hmm. comme ni ko di waxee di jàpp ne ay waa diw la waa ah. diw moomu bu bu yàggee rek problème day am bu nañ jàpp nañ nañ dal xel ci ñëpp yàlla jàppale ñu parce que Sénégal bu amee jàmm amal jàmm ñëpp mais bu benn groupe taxawee chaque instant na di tuumal ñenn groupe ah. problème day am quoi d'accord dégg na la bu baax jërëjëf jërëjëf Euh, professeur fi nga toll woon sàng. lii nag mooy débat c'est la démocratie ah. c'est ça la démocratie. sénégalaise ñu koy suuxat bu baax a baax di ko jaaga ci euh, ci réew mu xam mooy kan xam li mu bëgg xam fi mu jëm. c'est ça ca loolu état yi am nañ ci responsabilité. absolument que loolu ndax Sénégal mi ngi ci yoon woowu ngir nag ci njàng ci formation ci xëyum ndaw ñi lépp war a mën a tegu ci yoon ba ndaw lay xëy na kenn du ko fëkk. buñ ca nekkee de mën naa la wax ne kat. Mhm. liy des bëri

tàggat former commencé former seeni i doom yi. Mm-hmm. ñoom seen bopp jafe-jafe jamono yi jàpp nañ leen ba nga xam ne. Mm-hmm. amatuñu sax wala boo talatuñu sax seen doom. Mm-hmm. loolu moo tax ay organisation yu mel ni ñoom waa ñoo ñooñu war nañu mën a nekk ay partenaires. mais bi ñoom rek. ak képp ko xam ni. am nga ci maanaam wàll wi am nga ci rôle boo xam ne gis nga ne yow man nga koo jouer. dama la doon dama commencé sànq dès le début. dama ni woon. Afrique de l'Ouest puisque moom la ñuy wax. Mhm. ci àddina bi yëpp suñu zone suñu tund Afrique bi ñu nag. Mhm. moo gën a moo fii la. Mhm. maanaam ñi nga xam ne mënuñu bind. ak di jàng. ñàkk gi am xam-xam fii la ëppee fii la ëppee. te ñetti réew day neex a wàññi exactement ñetti réew yi ñu tudd ni Mali. Niger Burkina. ñoom ñoo toppante li ñu am ci analphabète mais ndax mën nga mën nga gëm ci siècle bu ñu nekk nii ñoom dañuy dépasser 80 de la population xam nga loolu c'est extraordinaire kenn mënu koo xalaat donc loolu bu amee responsabilité gouvernement yi la si si si si ça veut dire que ñooñu moo tax je ne peux pas être surpris bu ma gisee ni réew yooyu vulnérabilité am na ci seen wàlli ndaw ba nga xam ne ni ku ñëw nga indil leen maanaam yow def nga religion ni idéologie mm-hmm. Mm-hmm. mën leen recruter dafa yomb parce que fi nga koy jaarale mm-hmm. ñoom dañoo vulnérable maanaam dañoo néew doole néew doole boo xam ne ni lu tuuti rek nga leen di dugal takk nañu looloo am C'est suñu tund Boko Haram loolu mooy sa méthode favorite mhm. loolu la ñuy def partout te sànq maa ngi doon wax te bàyyiwuñu fenn mhm. zone côtière comment ça na puisque Côte d'Ivoire itam bi fi daan am kenn xalaatul na day am attaqué nañu Grand Bassam ñu jékki-jékki de Grand Bassam donc loolu Burkina Faso continuer donc dañu exactement Mali de laal ay hôtel yo xam dafa Ghana la ñu ciblé ay plage Mali man je me rappelle Euh, parce que après 2014 dañu demaat deux fois Mali mhm. boobu Bamako la bi ñu naree dem deux jours avant ñu dem hôtel ba ma ñu doon nekk. Mhm. foofu la woykatu euh, mhm. Sekou Baba mi doon nekkoon. te hôtel boobu la ñu attaqué won ba sama mhm. collègue marocain bi nga xamné jitu na ma mëna ma ah gis nga li xew. mané ko gis nga dé ñu ngi dem mission bo xamné déjà li donc loolu dafay laaj ñu jël ndaw ñi. ñu tagat leen valeur yi nga xamné ñun lolu d'abord ñu ñu identifié ñun fuñu parce que suñu problème yu état et suñu réew yi. duñu problème moy dañu am état. à la place des nations man lolu moy sama problème.

askan waa fi nation la li nga woowee nation mooy askan wu dëgër dëgër maturu ci wàllum xam-xam ndaw li ñu koy teel a peek ca teel wala kenn di ko fëkk mhm. loolu kenn wara caa jiitu état ba pare lépp luy différence si mhm. si si nit ñi loolu mhm. dañuy dem ba ñu rattaxal ko ba nga xam ne ni kenn du xam ne mm. kii mooy murid bi kii mooy tijaan bi kii mm-hmm. pël la mm-hmm. ñun ñëpp dañuy am benn valeur boo xam ne force la boobu moo leen di propulser mm-hmm. boobu mënuloo fexe ba ennemi bi diviser leen mais fii ak àgguñu si stade boobu dañuy vulnérable te loolu mhm. moom moo nërmalal réew yu mhm. bëri yoo xam ne ñu ngi Afrique daañu wàcc yow ndax toll nañ ci daanaka dix minutes moo dee ñu tàggoo kon damay jox euh, Serigne Maam Cheikh euh, Mbacke Xaadim Awa ba jiite ay AES mhm. daanaka dañuy toll dañuy toll ci tàggoo mais boo doon proposer ay pexe ba tey ay solution ngir Sénégal gën a euh, lii mu am nii mu gën koo peek ndax déjà am na benn ak i mooy ni nga ko waxee sànq ànd nekk benn mbokk wala sànq mi ngi koy wax nañu gën a raxal diggante yi gën a ànd nekk benn loolu yëpp c'est important mais ci continuité boobu rek tey ba doon wax ñu gën a peeg lii rek looy joxe comme proposition boo xam ne Sénégalais yëpp ñoo ciy àndandoo ok proposition bi ñu joxe mooy premièrement <coughs> euh, sunu njiit yu baax yi nga xam ci wàllu diine mhm. yàlla dañu boole ak ñoom waaw muy xalifa Tidiane wala mhm. xalifa xalifa général des Mourides. Mhm. wala fu mu mënti doon wala xalifa général des Qadiriya. Mhm. ñooñu nga xam ne ay kàngam lañ. yoo xam ne kenn du ma a dégg ci ñoom ñu wax loo xam ne. dana indi violence wala day def nangam. ñun boo gisee ay suñu xeex. foofu la sunu suñ suñ sensibilisation foofu la jëm. waaw man nan lañ ma fexe ba ndaw ñi. gën a am ay repères. gën leen a gën leen a déggal. ndax réew yi daan yëpp dañ ko amun ah. Malick Guèye bu ñu amoon ku mel ne sëñ Mountakha. wala sëñ Bassirou Mansour. mais am de. fii suñu état yi moo tax ma ne fii suñu état yi sax yàlla da yàlla yàlla da leen noppal mhm. wax suñu état yi bu ñu xamoon dëgg-dëgg ñi gën a war a waggar gën leen war a jox ci respecté leen mooy mhm. xalifa généraux yi mhm. ndax ñaata yoon nga gis grève am

ba nañ ko bàyyi bu ñëw kon ñooñu buñ leen amee mhm. dañ leen war a gën a wagar war a gën a respecté gën leen jox cër mhm. ka ci war a njëkk jiit noonu mooy état moo leen war a sàmmal seen honneur mhm. ndax sàmm honneur ñu mel noonu mooy stabilité réew bi ndax Sénégal gi may wax wax naa ko léegi ci njëlbeen gi ëpp ñu fi arme ëpp ñu fi dara mais dañoo dañoo ëpp la rek ay nit ñu way na suñu Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum na wax naan mm-hmm. euh, naari de bu ñu gënee magi de mu ñu gënal magi tey mm-hmm. waaw naari mm-hmm. ji Arabie Saoudi lee lee fa am wala Yaman wala Libye bu fekkoon ne xalifa yu mel ne mag yu mel ne mag yi tey yu Sénégal am nañ fa du am wallahi na suñ du am Libye du am kon daal faaw ñu yokk sensibilisation faaw ba teeg ba peeg ndaw ji ba peeg ndaw boo ci defee rek incha allah mu ànd ak moom mais loolu nag état dañu ci war a jàppale mm-hmm. ndax état li ñu ci war a jàppale mooy ni ma wax léegi rek boo amee ñu mel nii ñu téyel la sam réew mm-hmm. war ngaa sax maanaam maanaam woote ay loi yoo xam ne mm-hmm. maanaam da leen di sàmm da leen di aar ndax am na loo xam ne Arabie Saoudite kenn ñi ma ko de gis nga ñi ñoo tudde Al Cheikh ñi ci diine ji fële Arabie Saoudite kenn ñi mu taxaw di leen laal ñok la roi royaume bi la ñemal parce que ay ay ay ay ay mën leen leena wagar wa kay ay keno lañ li ma wax ay keno lañ keno yo xamne day tey jii bu réew mi gisoo xolal xolal euh, masalik ji naan bi jall barki démb waay xoolal rôle bi seigne mu tax a joué rôle boobu euh, société civile jéem nañ ko joué mënuñu ko diplomate war dem nañ ko joué mënuñu ko politicien ñepp dem nañ ko mënuñu ko seigne mu ñu réussir ko rew mi nekkat jam ak salam ci benn ci benn ci loolu bi ñu koy def danaka li nga ko waxe mbooleem tariikh senegal yépp ñinga won ci bir barab bi kon diiné senegal diine ji ñoo delluwaat. kaay ma kaay ma dalal xel professeur gis na réew mi Sénégal. Mm-hmm. wallaahi coowal tarixa dafa ma sàmm. Mm-hmm. xam nga dox mm-hmm. taalibe yi mën nañuy xër xam nga taalibe yi moom bokkuñu sëriñ si. taalibe yi xër mën naa nekk mii mel ne équipe football yi rek ay say supporter des nga xër def nangam mais boo demee dirigeant yi fekkee mat nañ sëkk way am na loo xam du leen mas a boole mais fii daa gën a dëgër ndax réew mi di Sénégal donte sax am na a dina xol yenn secteur yi mu jëm fa dugg kon ndok bi nga démé ba japp ni ñom ñi kër yi dune mhm. yi ah way nañu xam ñooy ñan ba kenn leen jëm féewale ku mel naa ñëw ñàkk xamam tax nam waaye buñ ko dellu siwaatee waaye bu ñu dem fekk ñu mel na ñun mm-hmm. ndax ndax ndax ñun tooguñu rek di mm-hmm. dunde barke mm-hmm. déedéet defuñu ko de parce que ñëpp mu sax mënuñoo jógandoo ñëpp mënuñoo jóg nekk terrain bu doon jàngal jàng sax dañuy wax jàngale ñëpp mënuñoo jàngale daa am ñu jóg rek comme ñun na ko yàlla sase moo tax jóg nañ nangu ko mais yombul li professeur wax wallahi li ñuy daj ñun manam tay bo deugul YouTube man en tant que man mi jidi AIS. Mhm. wax ju ñaw ju ne ñi nga xam ndax ah, bo jige bay défendre bo jige bay défendre am na la ngay défendre am ñu taxaw ne loolu du fi nekk donc ñun suñu mission mooy défendre tasaw défendre mhm. mag ñi bax ñi mhm. am na ñoo xam ci côté bi ay sénégalais yoo taxaw nañ nee li lii dafa war a jugee waaw mais ñoo ñu lepp ñu dal di boy rek fexé ba peeg leen waaw waxtaan ak ñoom lepp ci waxtaan ndax lepp stratégie la ay pexe la ci loolu lañ nekk loolu lañ nekk moy sensibiliser waxtaan ak ñoom andi leen paix bi nga am jamm Sénégal bari na ñoo xam ne tay ji ay ndaw la ñoon jang ci réew yi naar yi extrême lool mais buñ

ñëwaat yeneen plateau ndax jël nañ ko di ko waxtaane yu mel ni xam naa da nga amaat occasion ñëwaat ci ngir waxtaane wàllu googu alors euh, yow tam damay bàyyi rek euh, le doyen Baro euh, looy tàggatoo comme proposition rapidement man li ma bëgg a insister rek mooy mhm. Sénégal état bi mhm. ak kilifa diine yi pour man dañu war a changer xaal mhm. Sénégal waratuñu yem ci ndamoo li ñu am rek pour régler état bi dafa war a lëkkaloo ak kilifa diine yi ak association islamique yi ak képp kuy yëngatu diine mm-hmm. ñu exporté mm-hmm. exporté mm-hmm. école sénégalaise c'est-à-dire que cest à Sénégal dafa am dafa am pratique tey woo xoolee Maroc day ñëw fi Sénégal di di joxe ay mbir di jàngal ay imam di leen tàggat mais ñun lu tax duñ dem jàngal américain yi modèle sénégalais lu tax duñ ko jàngal Arabie Saoudite cest à il faut pour man. loolu génn non non que. ndax tout temps ñu ngi jël di di di recevoir. Sénégal yàlla daf fi def xéewal boo xam ne. modèle modèle modèle la c'est-à-dire tey ci wàllu jàmb ak ni ñu ràbbaloo nañ ko génne modèle la dañ ko war a jaay dañ ko war a jaay dafa am njëg beneen bi mooy dafa am aussi loo xam ne bitim réew réew yu mag yi dañ koy jëf jëfandikoo mhm. loolu Sénégal yàlla musal nañ ci may il faut ñu gën ci liggéey mooy suñ ñëwee ci réew dañuy dañuy am na ko auditeur bi ko wax mm-hmm. dañuy taqale waaw diviser day jël kuréel yi dalante leen waay te même boo xoolee même ci méthode xeex terrorisme mm-hmm. ñoom am na lu ñu ci théoriser mooy mm-hmm. su ñëwee ci réew mi dañuy jël kilifa tarixa yi dalante leen ak association yi dans ak intellectuel mhm. pour défendre ne loolu solution. mais exemple moi ma ci joxe mooy lu cadre islamique. Mhm. cadre ah non non am cadre bo xamné mhm. cadre unitaire. de l'islam au Sénégal. bien sûr waay moi kuréel boo xam il AIS ci la bokk association islamique yu melni jamaatu Ibad rassemblement islamique du Sénégal. ak këru dine yep ñëpp surtout les comités scientifiques. résultat yu am solo la commencé joxe. mooy ne réew ñi koy tabax dañ koy àndandoo tabaxuwaay. mais gis nga loolu suñ ko defee. suñ ci yokkee maintenant njàng mi am professeur dafa wax lu am solo fi fi fi terrorisme am doole nii actuellement yëpp. Mm-hmm. mooy fi éducation bi gën a wàcc. parce que terrorisme affaire idéologie la rek. Mm-hmm. am na ñuy wax ñàkk ñàkk bi laytaay la. Mm-hmm. mais mais réew yi nekk France. seen doom yi ñàkkuñu. mais mais mais dañu raxas seen xel. Mhm. dañu def lavage de cerveau ci bokkul léegi armé nit ñi ba. Mhm. surtout ndaw ñi. ba ñu mën a taxaw. Mhm. rawatina aussi ñu bañ ko xeeb. Uh-huh. ci wàllu politique. Uh-huh. xam naa xam naa bu nekk benn tamit day ci wóor mooy débat bi gis naa lu ñu gën di dem hmm. ay mbër di gën a feeñ <laughs> ah ci xam naa bu ñu amaatoon une heure trente de temps it eh, waxtaan bi day gën a xool gën a am solo hmm. vraiment gërëm naa la bu baax a baax a baax ndax tamit biñ la wooyee da nga yombal eh, li nga xam mooy ñëw bi noonu tam la ko sëñ maam Cheikh Mbacke defee moom itam professeur yow itam looy tàggatoo rapidement rek quelques secondes non man kañ xanaa di leen gërëm di <laughs> ma ko ba nga xam ne nii mm. lépp loo xam ne ni dina ko mën a yàq loolu yàlla mm-hmm. musal ñu ci te day laaj nag ñu liggéey liggéey bi façon yi bëri na mm-hmm. ku nekk na xam la nga xam ne moom mooy pàccam ci liggéey bi mu def ko mm-hmm. ba mu mat sëkk bu boobaa incha allah rabbi yàlla dinañu suturaal ba loolu ñu koy dëgg waaye duñ ko gis daal tabarakallah jërëjëf yéen itam ñu doon bàyyi xel DTV tàmbalee ko ci ñu woote ñëpp jéggulu ñu doon jéem a woote ci ak siwunu gërëm ñu doon diglu ñepp ku ci ne di la ñaanal euh, ni nga ak ñun suñu borom defal la jàmm gërëmaat bu baax serigne mam cheikh euh, khadim mam cheikh mbàkke khadim awba jité ay yes di kuréel gu taxaw boole te këru diiné yi ngir euh, xat li nga xam moy soufisme ci moy njàngale mak ñi nga xam Sénégal ñi ngi koy doxee at bobak légui ci amul benn jafe-jafe gërëmaatam bu baax mohamadou Baro nuyu li ma soxna ah, ci conseil bi ngeen bokku gërëm la ci taxawaay bi ñu yàgg la xam ci yëngu bi tamit nga yàgg doon tam kun daan diglu à l'époque bi ngay nekk ci liggéey bi nii ci ci rajo la place ni daan digloo vraiment tey la nga ñëw nangul ñu ko ñu ko rafetlu bu baax itam professeur moom daanaka moom it partenaire la léegi ñun ñu waa SAES bu baax a baax a baax ak mbooleem professeurs yi UCAD yi ah ak mbooleem kuréel bi yëpp gërëm la bu baax itam ci wuy bi kon daal yéen itam mi ngi askan wi gërëm leen bu baax ci ànd beek ñun incha allah